c'est forcé la dissolution de l'Assemblée nationale ci li nga xamante moom mooy ëllëgu politique bu Bassirou Diomaye Diakhar Faye li tax ma wax ko mooy boo fàttali ko passation de service ak prestation bi nga xamante ne euh, kii mu ngi doon jël service fonction ni ñu koy waxee euh, DG bu port autonome bu dakaar dafa yëkkati ay kàddu mu ne moom ci boppam dafa jàpp ne mënuñu gouverner avec vingt cinq députés à l'Assemblée nationale donc bu fekkente ne moom ci boppam li mu wax te gëm ko dafa nekk loo xamante ne dégg na ko xëy na ci ay njiitam muy Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye kon liñ ci mën a dégg mooy assemblée nationale faw ñu faw ñu dissoudre ko pour ñoom ci seen bopp ñu mën a am majorité au niveau de nationale pour mën a doxal li nga xamante moom la ñu bëgg a def buñ ko déglee rek kaddu yi nga xamante ne moom la wax le DG l'actuel DG du port autonome de Dakar maintenant nag naka lañ koy dissoudre kañ lañ koy dissoudre on ne sait pas encore mais ce qui est sûr et certain mooy il y aura une nouvelle assemblée nationale on ne peut pas continuer ak li nga xam ne moom mooy ce régime là ak assemblée nationale bi nga xamante moo fi nekk la man loolu sama loolu sama sama sama gëm-gëm sama conviction personnelle la léegi nag on comment est que lañ koy defee naka lañ koy defee mais li wóor ba wóor mooy te ma jàpp ko boo leen fàttalikoo bi ñu invité sànq yaa ngi koy wax Birahim Maître Doudou Wade je lui ai posé la que waruñu xoolaat ni ñuy tabbee député ci biir réew bu Sénégal parce que c'est vrai que dañuy dañ leen di tàbb yónni leen ne leen dem leen ngeen teewal ñu assemblée nationale maanaam yéen la ñu yónni askan wi ñoo leen ni ngeen doon ay ndaw réew mi mais est-ce que dëggantaan ñoom ñëpp c'est vrai que am na ñoo xamante ne on ont été toujours exemplaires ci li nga xam ne mooy assemblée moom la ñu bëgg taxawaay boobu moom la ñu am assemblée nationale point d'interrogation ce qui est sûr mooy am na ñoo xamante ne dëggantaan il faut oser ils ne sont pas des exemples au niveau de l'Assemblée nationale et ça c'est malheur c'est benn malheur la boo xamante ne ñu ngi koy dund parce que nag man dama gëm ne bu fekkente ne ñun tey askanu Sénégal ñun ñoo yónni député Assemblée nationale ne leen yéen ñi nga xamante ne député Assemblée nationale ñun suñu bëgg-bëgg moom ngeen war a représenter suñu bëgg-bëgg moom ngeen war a défendre l'exemple que je vais donner mooy li nga xamante ne moom mooy la loi ko mais askanu Sénégal on avait fait benn fois fii ci bi buñ ci leeral ci benn benn sondage boo xamante ne sur les 500 personnes da jàpp ne 400 et quelques yëpp d'accord ñu pour li nga xam ne moom mooy cette loi d'amnistie donc comment se on peut se comprendre à ce que askan wi nga xam moom ñoom ñoo leen yónni d'accord ñu ci lenn yéen ngeen dem force ñu li nga xamante moom la moom moom moom en tout cas moom mooy seen gis-gis moom mooy seen xalaat donc loolu nekk loo xamante jot na tembe ñu xoolaat nit ñi ñuy tabbee au niveau de l'Assemblée qui doit être député et qui ne doit pas être député quand on est député qu'est-ce qui doit être exactement notre travail qu'est-ce qui doit être li nga xam moom mooy suñu position sur tel ou tel point ça c'est quelque chose boo xamante ne il faut ñu xam ko am na ay députés yoo xamante ne ay loi ñu ngi ñëw assemblée nationale xamuñu ci sax lan